Mesdames, Messieurs, très chers internautes, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on se sénégalaise bienvenue quel plaisir de vous retrouver ah, ci beneen entretien exclusif boo xam ne dañu koy def un artiste qu'on ne présente plus au Sénégal de son vrai nom Thiat Seck borom bi Thiat Seck bi borom fermé yi très tôt il a commencé à faire les guichets fermés commencé ko ci ravin commencé ko ci yeneen boîte yi nekk ci banlieue bi Mesdames, Messieurs, l'enthousiasme qu'on ci entretien waxtaan actuellement ce qui fait le buzz sur la moom mooy récemment gis nañ nawleem Wally Ballago Seck daal di koy may oto fekk ko foofee ca soirée bi mu doon def moom waa kii di Thiat Seck daal di koy teral daal di koy jox oto bu bees tàq c'est ça ce qui est en de faire la buzz le buzz sur la toile moo tax cent 221 daal di dañuy ñëw seet ci kii di Thiat Seck ngir waxtaan ak moom mbokkee xarit yi balaa ñuy démarrer il faut ñu remercier su ay partenaires sunu ay sponsors njiital ci tap tap seen di mobile money bi sénégalais yi jox bopp foo mën a nekk ci réew mi wala bitim réew mën nga ko utiliser via Orange Money wala Wizall Money moom tap tap seen nag li gën a neex moom mooy deux en un la da nga koy utiliser foo mën a nekk ci àdduna bi mais aussi di remercier bu baax a baax Nourou la wax naa ko moom mooy tàng neex bu seddee neex nuru la jus ci bisaab ci ditax euh, ci buy euh, ci cocktail lépp loo bëgg ci jus bu naturel bu ngeen demee ci waa nuuru la jus dinañ leen ci jox ba ngeen doyal ci ay seen xeeti jotaay yi nga xam ne yéen a koy def moo xam muy ngénte réception baptême wéeré fa lu mu ci mën a doon wóolu leen te jox bopp lool nuuru la jus parce que jus la boo xam ne seen naturel et puis c'est authentique merci beaucoup Tic merci beaucoup Sony bu Télécom jërëjëf Zo Beauty Zo Beauty nag euh, mooy gunge xale yu jigéen ñi gunge jongo may ngir ànd ak ñoom seen i te xeeti taar ndax lépp lu jëm ci senteur lépp lu jëm ci parfumerie lépp lu jëm ci defaraat sa yaram ba mu baax parce que xale yi jigéen ñi tàmm nañ di defar seen yaram ba mu baax boo demee seeti waa Zo Beauty ñoom dina la ci jàppale bu baax a baax nga mën a am ma bu wér wóor mbokk yi entretien spécial avec Thiat Seck mon frère Thiat sama papa ji ah une très belle voix maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu ñu lay waa Diagne Naar maa ngi lay ziar. di bëggee waa diaspora bi 221. jaay di bëggee ñëpp. Euh, di la bëggee di bëggee sama waa ji di caméra. Zigo mhm. maa ngi koy bëggee bu baax. di bëggee samay soppe. di bëggee suma frère sama sœur bi ma fekk. Mhm. muy Bousso Seck. jaay ma ñëwoon tey seet si ko rek. ndeysaan. Koli wan indi leen. Mhm. mu tombé. bu sa doon ko baax di suma rakk di ziar di ko béggee bu baax di ko ziar muy rakk ju baax ju jigéen ju mën góor nag mm-hmm. baax lool di nuyu Baye Ngala suñu mag di nuyu Zal di nuyu Maam Malick di nuyu staff mi àndal ñëpp bi li ñoom tout le monde mm-hmm. maa ngi bégg samay soppe di bëgg si ñëpp daal di kontaan samay fans lépp ñoom la. super yàlla na jàmm yàgg. super Thiat Seck ça te fait quoi depuis ndem euh, ci biir banlieue bi wax naa ko très tôt nga commencé def gise fermé ravin yeneen boîte yi nekk ci banlieue bi qu' est ce que ça te nga doon euh, wëykatu banlieue bi. comme micro bi lan la lay def nga nga nga nga doon wëykatu banlieue bi ñu romb artiste yëpp ne Thiat Seck moom mooy wëykatu banlieue bi. waaw mais Thiat Seck ci banlieue bi la juddoo te ñun amuñu dul géejawaay. Mhm. amuñu dul pikin jàmm gën parcelle. Mhm. ginnaaw raay Fass Mbaaw ak Zag Mbaaw ñun Kër ma Massar Plan Jaxaay gàddaay ñun ñun géejawaay rek la ñu mhm. nu ñu mel géejawaay moo ñu ko moo ñu ko def. fi leen juddoo dañu fee juddoo dama fi juddoo fii. correspondant Sam moo tax banlieue bi ñëpp bëgg caat. macha ak diaspora beeg Ndakaaroog fépp. ñu bëgg fi nga dëkk bu ñu la bëggee rek ñëpp lay bëgg. Mm-hmm. noonu rek la wax naa ko tantôt algorithme bi nekk ci internet bi moom mooy euh, actuellement c'est toi qui fais le buzz si euh, internet bi moom mooy que ni sa nawle Wally Balago Seck. Euh, ñëw ci ca wuy si la non seulement moom dong ñëwul mu ñëw ànd ak staff bi. Mm-hmm. ànd ak waa Ramdan. Mm-hmm. ñëw wuy si la ci sa soirée mais li ci neex te mooy dafa ñëw ci soirée bi ñëw ak teraangaam. jox la xaalis ba xol bi sedd mu woy ak yow ci kaw seen bi ah, ñu pare euh, mu daal di lay terale benn oto bu bees tàq takk takk tàq yow bi nga gisee Wally ñëw ci kaw seen bi ah, jox la oto euh, ban yëg-yëg nga am ak balaa ngay wax yëg-yëg bi nga am lan mooy sa relation ak Wally balaa ko Seck waaw Wally c'est mon sama c'est sama xarit la mhm. Wally ku baax la yàlla def na ne Thiat Seck moom dara jomb ko ndeysaan nag wax dëgg yàlla lu baax nag bu ko nit defee dañ koy wax. Mhm. waaye daa doon rakk ju baax bi may bëgg dafa yàgg. mu doon suma frère ñu bokk lépp. Mhm. Alaaji Coon Seck suñu papa yàlla na ko yàlla xare na amiin mooy suñu baay yi. Mhm. Mapenda Seck kay baayam di sama baay. Ousmane Seck kay baayam. Keba Seck kay baayam. kon Waly su woyee daa war a woy sama xarit la daal. waaye daal a uma fayam daal ndax lii du lu ndaw. sa digganteeg moom fan la démarré. waali sama diggante moom yàgg na bi may bëgg yàgg na bi may dëgg bi may bëgg boobu waali kenn xamu ko boobu maa ngi woy simb di woy mbapat jamono yi xam naa ne waali mi ngi fubal mhm. doon jëmp nag doon bàyyi vaal waaw moom affaire kaanañu la bëggoon ba la nag mhm. waaye mu ngi ci mbalax mi waali yàgg na maa bëgg may bëgg dana ma fekk sax soirée Papa Ndiaye géwal mhm. soirée Papa Ndiaye géwal fekk na ma fa biram ndaw yàlla ko yàlla xare àjjana yàlla yokki leeram mu nekkoon oxygène man liggéeyam lool biram ndaw artiste yi ku mës ñëw rek ravin ci biram moo la jox micro waali bu mu sañee bu ñu ko jox micro day day day aju danaan du way mu yàgg waali boobu may bëgg waa yàgg na ko boobu kenn xamul caat bi may bëgg boobu kenn xamul caat sa soirée jamono yi Papa Ndiaye géwale ko doon tëgg mhm. man ak ñoom Abu Cibalo ay ñoom euh, Baba Mar mhm. Baba Mar numéro 2 mhm. Baba Mar numéro 2 yàlla na ko yàlla xaraa jana ndeysaan Baaba Maar mi fi nekk di suñu papa moom it yàlla na fi yàgg te wér. amiin waay barke sëñ Touba. Mhm. loolu dafa yàgg ak ñeneen ay ñoom Menga suñu papa suñu mag Menga. macha allah doomu ndey nongolo. Mhm. ñoom Yves mhm. doon lu ndaw nekk seen biir. d'accord abu euh, kii nu mu tuddati Waly. jamono yooyu la ma xam. macha allah di ma yàgg maa bëgg na. dañu la gis nga dem soirée moom Waly. Mm, nga yëg ci scène bi public bi yëpp di la déglu attentivement ngay woy parce que tamit quoi qu'on puisse dire waykat nga mhm. euh, euh, mais li ci gën a neex mooy da ko invité sa soirée yow mhm. directement nga ne ko dama lay invité sama soirée mhm. te bëgg naa nga ñëw euh, ci biir woy bi Wally tontu la ne la dinaa ñëw te dinaa ñëw mu ñaari ñëw ñëw Euh, si moom moom balaa Ballago Seck moom mu ñëw wuy si la ànd ak staff bu Ramdan hmm. ba pare yëkkati teraangaam jox la euh, rax si dolli mu yëkkati caabi oto bu bees tàq jox la bi mu la ko joxee euh, man gisuma say bët nga jooy mais gis naa si sa xol hmm. kontaante gis naa si sa xol sa xol jooy lan nga yëg sama morom sa nawle artiste ñëw sa soirée teral la jox la oto waaw Wally mooy li ma wax rek li mu def dafa rëy tey su li ma wax léegi suma frère la Wally daf maa bëgg li mu bëgg def si sax du lool rek ku naan la ñëwal ma defal la ñëwal boo ñëwee Papis Papis Ndiaye defal la album li ma koy wax Isat Amadou Bari la caat foo nekk ñëwal Papis defal la album waaye yàgg na ma bëgg te showbiz bi ñu ñoo ko bokk ñun ñëpp mhm. ndax lépp dañ ko fi bàyyi dem yàlla na yeex mhm. kon na rafet ndax bu dee dañ naan ay woy moom mu xam ne ay woy caat da koo mën mu bëgg caat lu yombul mhm. te moom it kenn daax ko woy ndax da cee juddu da cee juddu waaye daa baax xolam moo laab dañoo bokk xol nag daa mel dañoo bokk ndey ak baay rek. daa xam ku baax man waali ma demee soirée am damay sama xol bi day sedd su ma duggee soirée waali di ko muy way mhm. man bu ma woyul xol day sedd ndax euh, fu jaar dana naa caat. lu nit ñi bari bari bari. daf maa bëgg kon su ma wooyee dugg soirée mu woy sama xol tooy ñi ne ma téye rongeñ yi bul jooy. waaw jooyal jooyal rek mais jooy bi <laughs> ma jooy jooyu xor rek. téye rongeñ yi quoi. mais moom sax boo ko xoolee xam ne nit ku baax la daal. daa am yërmande moom day am boo xoolee xam ne kii daa am yërmande si caat. Mhm. daa bëgg caat. barke sëñ Touba pourtant mu doon nit ku baax. Mhm. mais euh, c'est un artiste trop critiqué. Mhm. Euh, nit ñi di wax ci moom. Mhm. di naan buy def day def te du def def te yàlla tax day def comme ngistal yow mu leer la ne ni Wally nit la ku baax artiste la bu bu yaatu xol. boo dégg yenn tuuma yi wala yenn wax yooyu ci kawam euh, ça se fait quoi. waaw bu demul woon du dégg ay wax bu demul woon kenn du wax ci moom dara. waaw fi na nag boo dee dem nekk ci yoon. ñi ñi naan diw il faut ñu tàmbalee wax ñi doon ñi doon wax naan nag jéngul sax woyal doon wax naan mais booy bi bu imposé day dem booy bi imposé na dem na sax ñoo njëkk wax soo loolu la Youssou Ndour ñi ñi dañuy wax ci moom suñu papa Youssou Ndour ñi dañuy wax ci moom woykat yu mag yi fi nekkoon wax nañ ci ñoom ku leen a ngay dégg day dem nekk ci yoon bu baax di dem gëm boppam donn li muy def moo tax nit ñi dañuy wax ci moom noonu moom du gestu woykat booy dem nag bul geestu bul geestu mhm. man lu ne laay dégg waaw dina dégg lu ne mhm. mais day sant suñ borom tey la ko ñi ñi gën a bëgg tey lay gën a neex waaw man teraanga ji ma defal nii rek uh-huh. fi ne ñi ma bëgg sax fi ne bëgg nañ waale waaw barke sëñ Touba dooleeku nañ ci moom quoi li may déglu ci euh, appel man li waal def dama doon dégg appel mais appel li ma dégg démb ak tey mënu ma nelaw appel comme nit ñi di wax mbégte ci moom noo caat noo waali man bëgg naa ko ñu caat caat waali sekk bett na ma yow yooyu noonu bis naka tey man man daaw ma déglu waali ah caadee man daaw ma déglu waali tey fii tey jii laay tàmbali déglu waali oh. lu ne ngay dégg lu ne lañ bay laay dégg sama télé man na ko ñëpp déglu daa mën na lu ne ah parce que dafa doon loo xam liggéey oto dañu oto du oto ay millions lay jar jarul deux cent mille dëgg la de oto jarul trois cent mille ah te for naa ci yooyu bay sax oto bi mu la may ça coûte plus de vingt millions non mais loolu xooloo koy def expliqué na la oto jarul 500000 jarul 1 million. mu jékkati 4x4 jox la ko. Mhm. non man bi may njëkk jënd oto man 2 millions 500 laa jënd oto. ndeysaan. 307 laa njëkk a jënd ànd ko li wan di jaayante lu ma dénk ko mbay jaañ ba ba mu mat abi mbaw ma ñëw mu wàññil ma jaay ma ko mu bees tàq oto boobu ma njëkk am ñu tagaat say fan ñu mayaat ma oto. ñu tegaat si ay fan waali joxaat ma to Fall xam nga réew mi li fi nekk mooy xol la yàllay fay. Mhm. bu nit dootu xaalis yow utal doomu yi boo amee ñu doo ñàkk dara. Mhm. waali nit ku baax la te pareegul sax ak caat. ah bon waaw pareegul na lu muy waaj loo xam ne nii sax waaw. yàlla na ko waaw du kayitu kër sama xarit bi. <laughs> la quoi. nit ku baax papa waal mën na mën na jékki-jékki rek na. non waal daa ku baax a nekkal waale xam ne ne caat mi xolam dafa rafet. ndeysaan te waale xolam daa rafet. man du ma tagg sam bopp man nii laa mel. Mhm. dem sëñ Fall doo daa wax ku dul ñuqi doo ñoox. dëgg la man damay ñuqi moo tax duma ñàkk dara. macha joxe na kenn du la jox. super moo tax waaye day joxe moo tax lu bu joxee oto caat sax. Mhm. benn oto day ñëwaat ci moom. Mhm. man am naa xolu joxe fukki oto man. barke allah ji fàllu. rawal mais lim def nii non nañ non dañ daal. très bien ça wala très bien parce que artiste moo fekk ndaw la artiste si seenam. Euh, euh, je vous parle je vous parle comme ça. <laughs> Euh, waali koy ni waali nii nga xam waali c'est la waali c'est booy. booy booy booy waali booy waali non dëgg la waali ko wéy ko ma xool wéy ko wéy ko comment comment tu t'appelles. <laughs> waali Seck. Maria si may sa biigee waali yàlla na nga am jàmm waay. booy baax la. <laughs> mais doo mbokk yi maam samay mbokk sax dañoo kontaan. macha billaay ndeysaan boo ko doon nii ci si ngéwél rek loo koy nuyu non waal dama ko def waal di surprise laa koy def dama ko defal son bu neex yaa ngi koy sama rakk ji ñu woy ko lu neex hmm. non waal il foog ñu woy ko boo paree na ndax la hmm. waal damay si joo woy ko lu neex sama baat bi maa ko moom dinaa ko woy lu neex woy bàyyam ba tëdd euh, ca àllaaxira hmm. woy ko lu neex apa coon woy waal lu neex te bu ma koy woy ay xalam laa koy woyee traditionnel laa koy def laa ilaa naa ko woy lu neex traditionnel ay xaram dama xaral non laaj ma la question ma denc loolu. <laughs> nga naa koy lu neex. <laughs> est-ce que xam nga ne ba sa suba ga la ñu woy lëkkali woy si Dio. ne la faa nga woy Wally Ballago Seck. man maa créé loolu. sama xol moo sedd. ndeysaan. Zal Touré mis ne ma loolu de jot na mooy dëgg kontaan naa. Mhm. dama koy woy lu neex. billaay naa ko lu neex lu lu ngéwalee. ci pex lu loo xam ne day doon ay xalam. Mhm. ay tumba. affaire bu garaaw mu doon acoustique. ko déglu da ngay day. mais laaj ma leen a am ndeysaan laaj ma leen yàlla baax laaj ma leen dina ma ray eh, gis nañu aussi eh, nga doon artiste mais mm-hmm. sa nawle artiste yi fexe nga ba doon ci médiateur mm-hmm. maanaam di wax lu baax mm-hmm. di def lu baax récemment gis nañ la soirée eh, Sidi Diop nga dem fa wéy lu neex macha allah mais aussi nga jël micro ne ko sa mag Waly Balago Seck du sonnoon te ku la bëgg la bul nangu kenn jaxase la ak Waly Balago Seck loolu rôle la booy joué léegi wala ambassadeur la bu ñu la nommé yow Thiat nga bëgg a rattaxal diggante artistes yi parce que quoi qu'on puisse dire artistes yi ñemente wuñ seen biir te yow yaa ngi dox ci solo ci loolu noonu man lu rafet rek laa xam man Sidi def ma ma ànd moom mu rafet mu aw fu ne Sidi du siggi xool ma. siidi Sidi booy bu yaru la. Mhm. Sidi sama rakka siidi maam naar sama doom bu sa di bàjjanam bi mu toll nii bu musaa ñëw programme. Mhm. papa tey fan ngay woye ma ne ko wóol koli wóol koli ma nga fa mu tegtal la ko. Mhm. koli koli mooy tegtal Sidi mu ñëw bu ñuy def première parti bala maa ñëw. ba defal na ma ko sax yëmbal fu ne tropique yi may tëgg sax lënd yi defal na ma ko fa. Hmm. bu doon xale bu yaru fu ma gis taxaw génn xaas jox ma. du si gi xool ma xale bu baax la sarax sax daje nañ fa. bi daaw da sekk génne àdduna su ma mag magi mbay jaañ mariage may hmm. sa biige daaw da sekk suñu kilifa. Hmm. ñu daje fa rek bu ñëw sarax si man lañ jubal si. bi muy dem mu ñëwaat si man génn dugal loxoom si poosam jox ma xaalis bari. mu ne mu ne ma yow fu ma la fekk dama laa jox yaay sama maître xale bu yaru la man defar laa xam lu baax laa xam ndax garab ci kaw lay fekkante kenn xamul ko doon dara suba yàlla pare na mhm. kuy def lu baax nag mhm. ak nga nekk ay rakk ñu doon xale yu baax mhm. man defar rek man ku ne war naa dem ci yow wax lu baax Waly Seck ak Sidi Diop amuñu problème Waly magam la te Waly Sidi da doon ñëw mu ko jox micro boobu ñun ñi xamuñu Sidi Diop may toog sama kër di seetaan nit ñi di ma woo caat lu tax li booy bi def lox doo ko def ma leen non dana baax léeg-léeg dinaa dem ci waali sax mi gëj naa fi waaye dinaa fa dem li jot nag yomb kii xoolal si waali ni mu baaxee mhm. booy bii di woy saa yu demee waa sii di la wax de saa yu sii demee waali jox ko micro ma koy seetaan di ko gis waali magam la waali kilifaam la waali papaam la man maa ko wax hmm? waali magam la papaam la mhm. non nit da ngay am kilifa ñun Youssou Ndour suñu papa la. waaw ah, c'est vrai. man Wally Seck magam la. Mm-hmm. mais Sidi Diop yàlla la da ko fee teg ne ko di nga am ay say biddew dana leer. Mm-hmm. ñu naan garab nag ci kaw lay fekkante bu ne ba àdduna tollu fe ñaan naan diw. ak diw Thiat Seck. Mm-hmm. Sidi Diop. man toll naa fi Sidi Dimaaw ñaan ma Sidi Diop. moo doon awu Thiat léegi Sidi Diop moo xew. mais nu mu demee nii mais dama ciy def lu ma naqari. sama xol bi du taa. dama ciy mer bi loolu amee ay jamono am loolu am maa ngi nekk si li ma nekk daan ak colis ma xëy xëy ñu ne ma benn woy génn xooxoo. waaw ma dem ci France dem ci Allemagne. waaw ñun mi tàmbali salansi xanaa salansi sax ñu fiy gën a imposer caat la. waaw si woyu caat bi la. ñetti xale yu jigéen ñeenti xale yi doon fecc loolu affaire bi toj àdduna. Mhm. ma dem te way naa lu dàq xooxoo. xooxoo mhm. génn dem ci France dem ci Allemagne dem ci Italie <laughs> dem ci Bologna dem ci Brescia def ci un mois. may ñëw jëndal sama xarit yëpp ku ne téléphone. ñi ma joxul téléphone jox leen xaalis. te loolu sama rakk ji moo ko njëkkee moo njëkk a tukki dem États-Unis dem fépp. Hmm. woy góor montur 6 heures c'est ousa ñu bokk ndey ak bàyyi dem dimbale ma dem naa samay xarit ma bàyyi ñëpp ñëw ci yow ngay war di korkoraan hmm. ñu bokk ma nàmp jox ko mu nàmp bi mu dem moo ba muy tukki man xaw ma ne dinaa tukki. bi mu ñëwee dina ma yow di nga dem nag moor bu jotee rek di nga dem. Hmm. bi mu ñëwee xaas bëri la ma jox moom bu sami xaas bëri ak mais Fall lu jot yomb. dëgg la léegi xoolal jamono yi léegi ma génn léegi ma génnee ñun ñi dañ koy nangu si di fa mu toll fa mu toog moom it xoolam day sedd. Mm-hmm. Oh, Wally Seck bég woykat yëpp ay bég daan ndeysaan Thiat Seck dañ ko war a dégg daa mën a woy ba pare baax lu ma ah, bokk ak nit ñi. kon nag Sidi nit ku baax la. booy bu baax la Wally nag moom moom mooy maire buteur. <laughs> non Samba Naim moo jël maire buteur. non mooy maire buteur. <laughs> waxoon na maay nag bu amee li Wally def. waxoon na fi maay number one réew mi yëngu de. non mooy maire buteur xam nga mooy maire buteur. Uh-huh. Sidi Diop. li Wally def am na xolu defal ma ko. ngay ndeysaan. te mun na ma ko defal sax fii ak suba. Mhm. kenn xamul yàlla pare na. waaye mooyee bokkul bu mooyee bokkul nag ku ne dangay ngay nangul sa morom. Mhm. ay way caata ko man. waaw ah, <laughs> da ngaa mën a way sama xarit. xale yi di la toppandoo. Uh-huh. bu dee jigéen ñi sama rakk ci daa ko way. <laughs> kan <laughs> bu dee xale yu ndaw yi. Ah. ñu nekk fële presse aar. sama dooma ci daa ko way. bu soy waaw Bousso moom xam naa après dina ñëw sax. Bousso nuyu ñu dama bàyyi ma ne la. nit du tagg boppam ñun woy daan ne ci ñun suñu yaay doon woy ñu koy tere te ay ñeeño lañ duñu ay géwal waaye géwal yi dañ leen a bëgg ndax dañoo yoroo ci kër géwal yi. yàlla nag pare na yàlla xol lay fay. d'accord lu ñu am suñu yaay lañ koy jox lu ñu am suñu papa lañ koy jox lu ñu am suñuy jabar ak suñuy mbokk. Mhm. ak bokk ak suñuy xarit. ak suñuy staff ak suñuy musiciens kon yàlla duñu seetaan super yàlla du la eh. seetaan euh, Thiat Seck mbokk xarit yi si vous nous rejoignez nous sommes en entretien exclusif avec Thiat Seck euh, di remercier bu baax a baax suñuy sponsor a di si jiital ñoom tap tap seen Nouroula Jus mais aussi euh, di remercier bu baax a baax Tic ak Soy bu Télécom ak Zo Beauty mm-hmm. Thiat Seck mm-hmm. bokk nga ci artistes yi nga xam ne boo wootee ci ci banlieue bu mu fees boo demee ci boîte almadi mm-hmm. ñi naan Thiat Seck lañ namm ay grand théâtre yu mag yi Thiat Seck lañ namm ci ay yooyu noonu foo ci loolu maa ngi ci ak Pape Dioum London Musique ndax nag Grand Théâtre mën naa faa dem mus yàgg nañ maa faa bëgg a yóbbu waaye Grand Théâtre daan nag album. Mhm. mais nag soirée yi neex na. Mhm. maa ngi tëgg sag lundi di tëgg sag mercredi di tëgg jour yoo xam ne ñun dañ koy xëy liggéey sag lundi tropique. sag mhm. mercredi nga ne five di dem Kaolack di dem ci dëkk yi Louga léeg-léeg nga dem ci dëkk yi mais dafa jot lu jot yomb. Hmm. album bi nag ñu ngi ci ñu ngi ciy waxtaan. décembre bi lañ ko bëggoon génnee. décembre dañ ciy génne clip ñaari clip. Hmm. danaa ko ci def. al décembre bi album bi daal di nga bi li ma woy hmm. si album bi daa bari. waaw mais nag al carte dafa baax. dem grand théâtre albumu caata génn caat demaale grand théâtre dafa am solo. waaw ku dugg ñu jox la sax. album bi kon daal mën nañ xaar décembre bi album bi génn nga nga annoncé ko waale ak Grand Théâtre non album bi décembre bi néewmal day génn hmm. dama ne décembre bi hmm. dañ ci génne single single bi ngay annoncé quoi ñaari single ko te ñaar yëpp lañ bëgg a clip benn bi daw fin décembre beneen bi daw hmm. loolu laa bëgg a def d'accord album bi nag bu ñu ko doon génne si bi nii kon il ñu nekk waaye toog nañ ba waxtaan ci ak Pape Dioum mu doon ko gore nag doon ko baax doon ku baax dootul xool caat. Mhm. waaye ndeysaan mu déggoo ma ne ñëpp am yërmande si caat. Mhm. Pape Dioum ku baax la. super mais nañ ma xaar ci décembre bi. Mhm. lu bees tàq day génn. macha allah nañ ko xaar ci décembre bi bu bees tàq. ñaari single yi nga xam ne Thiat Seck dinañu ko génneel. Euh, dem naa seeti Adiouza sa nawle artiste ma laaj ko lan moo tax artistes yu mag yi euh, du ngeen faral di def ay featuring yéen seen biir. Euh, lan mooy problème bi est-ce que du da ngeen a ragalante. wala da ngeen a Euh, mu ne ma problème bi moom sax xamul woon fan la fan la situé euh, yow en tant que artiste est ce que mën nañ xaar sa featuring ak Wally Balago Seck wala ak Sidi Diop ak Thiat ak El Hadj Keita ay hmm. Tarba Mbaye lu tax ndaanaan yi du ngeen def ay featuring non man de wax dëgg yàlla pare naa pour def ko ñëpp ku ma ci woo hmm. pare naa pour def ko ñëpp muy suba muy ginnaaw suba hmm. waale moom dinañ ko def moom xam naa ah Waly yaag Waly Seck danañ ko def di ngeen def featuring waaw bu neexee yàlla am na lu bëri loo xam ma la ko wax hmm. mais en tout cas daal hmm. ku ma ci woo keneen après ma def koog yow waaye bu ma koy def wala laa koy njëkk a defal est ku nekk toog sa wet sa ruq di xaar moo tax duñ gis ndaanaan def ay featuring parce que koo ci seeti la ku ma ci woo kon kan mooy njëkk a woote non no non non dum dum non man ma dàq leen waaye nu may nu may lu woon may xaar buñ demoon tey suba ñëwal damay ñëw suba mhm. mais instant bi wala laa koy defal pare mbooy yëpp maa dàq waay. <laughs> Eh. caat ngeen lan. grand yeeg boo yeeg ñëpp grand ñëpp mag ñi nga xam suñu papa la ñu leen ruus rek papa diw ak yooyu. waaw waaw waaye xam nga yaa ndaxawee ñoom ñëpp. <laughs> barke El fal Fall góor yàlla yi de. Eh. ñoom ñëpp mag ñeeg xale yi bàyyi ma fi kenn ñoom ñëpp maa ndaxawee waale daa gore xam na loolu. Mm. daa xam caat daa mën way ku baax la. ndeysaan man way naa ñëpp way naa borom trottoir yi way naa borom seret yi way naa borom vélo yi. woy naa borom taximaani woy naa Ndiaga Ndiaye woy naa ñëpp. woy naa mbër yi. ak non accord bi ma ñëw si sa soppe yi nga xam ne dañuy seetaan diaspora 221 dañ ne ma. ñaar fexeel caat sekk. ñiimal ñu dara rek ci Serigne Saliou borom jurul borom xëy yaare waaw waaw waaw waaw. borom jaam ak man de bëgg naa la waaw waaw waaw waaw. ndeysaan. a jooy ma waay. Hmm. amul tijaan amul laayeen xaadar ñëpp a jooy maam Saaliw borom jurul. borom xel kom jaaga laay laay laay wa wa wa wa wooy yeye Baay Saal moo seexal seex bi co bambi caame wa ku jaaxle Serigne Saliou ngay woo ku jaaxle Serigne Saliou ngay woo Baay borom jàmm ak jàmm ak jamono man di bëgg naa la waaw waaw. Serigne Saliou man di dama lay way baban may jaale. Hmm, baayu Serigne Moustapha Saliou dama way baban may jaale. baayu Serigne Moustapha Saliou dama way baban may jaale baayu Serigne nga fi. borom jurul xajoon nga fi xajoon nga fi na fe waawaay ay ndeysaan la voix pétillante de Thiat Seck sur Diaspora 221 a été un immense plaisir amoon artiste bu mel ni yow wax naa ko j'ai eu à le dire bokk nga ci ndaanaan yi nga xam ne ñun ah, dañuy rêvé di toog ak yéen di def ak yéen émission en tout cas kontaan nañu ci bu baax a baax euh, laaj yi j'espère que euh, ça a été euh, lépp luñ la fi laaj rek pour sénégalais yi xam Thiat Seck ci lan la nekk ak aussi teraanga bi nga xam ne Wally Seck defal na la ko il est temps nga nga génn wax ko te bi mooy première fois bi la Wally Seck defalee teraanga bi ngay doogay wax ci ci site internet Diaspora bi waaw Mhm. atia diaspora 221 man daal ma ëmm seen fay. maa ngi bég ci yéen. Mhm. ndax nag wax dëgg yàlla ne fi rek moom solo. Mhm. ndax loo mën a am loo mën a doon da nga fiy jóge yàlla na yeex. waaw nit ki nag li ngay def boo ci doonut mm, boo ci amul fit doo dem. dëgg la waaw sobis li boo ci amul doo dem ndax sobis musique bi binduñu ko fenn. waaw ah gisuma ñu bind ko ci. amayata wala sabisma wala saa jaa hmm. waaw bu ñuy noddu sax boo doon musique da war a taxaw bañ noddu ba pare kon nag kenn dëkku fi yàlla rek a fi ne ak yonent bi ak Serigne Touba ak moom El Hadj Malick maa ngi ñaanal ñëpp am jàmm. sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi. kilifa diina yëpp yàgg fi. président Macky Sall am jàmm yàlla naa gale. yàlla boo ko kenn yërëm. soxnaa Marème Faye Sall am jàmm ñu topp ci ginnaawam ñëpp yàlla nañu am jàmm ndax nag moo fi nekk mooy suñ président nañ ko ñaanal wér ak gudd fan ku aaye wal sa moomee waaye moom moo aaye yàlla na fi yàgg te wér yàlla defal ko jàmm ak ministre Matar Ba sama xarit bi sama nijaay sama xarit mais ministre Matar Ba yow fële Fatick waaw fàtte woon naa ko moom it am na ku ma booleel moo doon maa jox oto waaw xaw moto bi daam kuñ ko jox xaaral ma leerlu fii daal. Mhm. lii tamit am na solo. Mhm. ndax ministre Matar Ba am na ku ma boole loon. ngoom ñaa. Mhm. ah gisaguma oto boobu oto bu Waly daal la njëkk a ñëw te ministre Matar Ba ku baax la ñëpp ko bëgg. ñëpp ko bëgg. yàlla na ko yàlla naa gale. waaye xam naa nag bu fekkee joxuñu ko kenn daal ministre Matar Ba oto bi kenn joxaguma ko daal. ngoom ñaa nag xam naa dañ ko joxagul waaye moo tax jotaguma si. waaye xam naa naa si jot bu neexee yàlla ndax Omoro mu ngi ci pour lijjanti collègue ngi ci lijjanti Zal ñëpp. ministre Matar Ba yàlla na nga am jàmm kuy ànd ak Macky Sall yàlla na nga am jàmm. macha allah bu keneen ñëwee nag toogaat nag ma ne ki fi nekk yàlla na ko yàlla defal jàmm rek. macha allah waaw liggéey liggéey la ki fi nekk nañu ko ñaanal jàmm. macha allah c'est très mm-hmm. waaw yàlla na jàmm yàgg yàlla na am jàmm. jaajëf Pape Diouf nag maa ngi ko ñaanal gudd fan moom it dama toog burki démb ñu woo ma téléphone ne ma jàppal seen TV Coly fàtt naa la ko wax may may fa ma nekk courant coupé fa. Mm-hmm. ma nekkoon Kër Mbay mm-hmm. courant ñu woo ma mbay Kaolack këram laa nekkoon mbay Seck sama rakk woo mu ngi Tamba nekk ba Tamba naan ma jàppal seen TV Pape Diouf Pape Diouf si yow lay wax. Euh, Alima Ndione laaj ko Alima Ndione nit ku baax. ndeysaan jigéenu Cheikh Sarr. Mhm. moo ko laaj ne ko yow yaa ngi ngi xaar xale yi ndax yaa ngi waajal pour may xale mhm. ku mel ne Alima Ndione ak diw ak diw mu ne ko Alima wax nga koo xam ne. kooku woyul sax aasam <laughs> kooku woyli woyli la lu gaaw gaaw Zal Touré dugg ci xam nga téléphone moom am na solo fi nga xam ne daa baax. Mhm. lu gaaw gaaw rek Zal Touré dugg ci ci direct bi ci téléphone bi si mhm. téléphone ñu ko siy seetaan far mu jàll ñu arrière ko ma déglu li mu wax sama xol seet ndax pap jantal grand la ku baax la te daa mën a woy moom moom woykat la moom it daa mën a woy trop mhm. macha allah mu wax lu rafet tudd artiste yëpp wax ci Yves Niang wax ci abu ci bolo wax wax ci tamit lu rafet. Mm-hmm. wax ci caat nag loo xam ne ma ko toog mooy xam ne man góorgóorlu rek moo ma war a liggéey rek moo ma war a waaw ndax Pape Diouf bu lay dem bay toog ndax suñu mag la. Mm-hmm. bi muy woy boobu caata ngi woy simb. te suñu mag la ñun ñëpp ah. mm-hmm. mu doon mag ju baax nag. jantal grand la mën a woy lool nag. doon suma kilifa. kenn dàq ko woy. man mii rek maa ko dàq way caat <laughs> neex la def. <laughs> waaw waaw dama lay expliqué kenn dàq koy Pape Diouf man rek. man rek la ragal nag. Ah. ak maa fonk bu ñu dajee nag day nekk naan yii caat sekk ñëw naa. yii dafa danger grand jantal grand la yàlla na ko yàlla defal jàmm c'est nag man sama toggee ah. damay ambiance rek la damay bëgg gars yi dee ah. ma dajji ndax émission ma damay bëgg nit ñi dajjeeku ndeysaan xam nga boo na laam yàlla yaay fi nekkoon doon way ajartu xaar mbay ma jaaga mhm. jaal mbay ñoom daaro mbay mhm. ñooñu ay ndaanaan lañu. ndeysaan Père Dut na ko yàlla xaraa jënd. ndeysaan alaaji du sekk yàlla na ko yàlla xaraaj jana bu sekk sama rakk ji yàlla na ko yàlla def mag mhm. ñu dem bañ koy dégg ci aar bi muy tëgg Sorano di tëgg grand théâtre te jot na yàggatul dara dayam yàlla na jàmm yàgg maa ngi di bëgg nag kontaan nañ Thiam jërëjëf ayca merci beaucoup merci à tous Sénégalais qui nous suivaient depuis le début sur Diaspora 221 l'actualité sénégalaise c'en est tout pour aujourd'hui on se rendez-vous inchallah prochainement ci yeneen entretien ak yeneen yi ndaanaan waxoon naa leen que li ngeen bëgg yéen ci Diaspora 221 fii rek ngeen ko mën a amee ci Diaspora 221 merci d'avoir pris du temps de nous regarder maintenant il